bi si fasahati lisaani habli fasahatan wa nawiran haqli wa bi mutaharil janaani lisrai sadri wa anni kulla durrin saxsihi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi daje di ay mbokki taalibe di ay xarit ak i wëllëre di ay dëkkandoo di ay soppe yoo xam ne seenug yëngu firndeel na seenug cofeel noo ngi leen di nuyu nuyub lislaam boobu di leen siyaara siyaara boo xam ne dañu ñaan suñu borom mu tollale koog seeni daraja noo ngi sàkku ci yéen itam nu ànd ñaanal suñu kilifa suñu borom gën leen fee yàggal te dafa leen ak wér bu ànd ak wér ne te wéralal leen ñi leen wër ci barke Serigne Touba noo ngi fas tàmbali liggéey bi ci ndigalul Serigne Abdoul Ahad Mbacké nu Serigne Mourou Faty Khary mi woote bés bi nu wuy see nu ko nu ni mu ko wootee woon maa ngi jégalu nu dalal Serigne Falilou Mbacké moom Serigne Moustapha Falilou mi ngi nii si léegi ñu dalal ko te tàmbali waxtaan bi Serigne Falilou Mbacké moom Serigne Moustapha Falilou kon fas yéene tàmbali liggéey bi tàmbalee ko ci li ma ko waxe woon léegi ñaanal xalif général des mourides sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal sëriñ Mouhamadul Moustapha xalifa sëriñ Massamba sunu borom yàggal ko fi te dolli ko ak wér ñaanal bu baax sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Massamba moom sëñ Mour Fati xarit sunu borom yàggal ko fi te dolli ko ak wér kattanal ko àggalil ko yeneen di nuyu nag Serigne Fallilou Mbacké bu baax moom sëñ Modou Faty Khary ak rakkam yi mu nekkal yépp bés bi ni ko waxe woon ci njalbeen li taxan Serigne Abdou Lahad woote ko moo doon fàttaliku mag mu baax ak ñaanal way jur te loolu li ci di ay njariñ ku ko xam danga nga ko yaatal da ko woote ndax ñëpp daje ci bokk ci njariñ bi te leeral na ko léegi ci ay kàddoom yoo xam ne bi mu joxe misaal ci cin loo xam ne dañu koo togg ba mu ñor ñu yàpp ko tasaare ko njariñ noonu la mel kon nag njariñ loolu mooy li mu yéene ñëpp waaye nag ku déggal woote bi itam boo teewee fii da nga xam ne ki mu wooteel mat naa wooteel waaye moom mi wootee mën naa woote te yaar yooyu baax ñu ci bés des na wooteel ku mën a woote ku mën a wooteel waaye nag na fekk nga mën a wootee moom nag fa tabarakallahu jikkoom ak ni mu seqal bindeef yi jamonoom loolu tax na bu wootee ñëpp wuy si ko yàlla nañu yàlla defal yéene ji nga xam ne moom la yéene ci mbooloo mi suñu borom àggale ko ci barke Serigne Touba bokk yi nga xam ne teew nañu fi nañu jéggal duñu mën a lim ñëpp waaye danañu lim rek ay mbokk délégation gannaaw ba nu si siyaaree Cheikh Abdoulahat ñaanal ko yàlla yàggal ko fi àggaleel ko yéeneem bokk na ci bokk ñu fi teew waa kër Serigne Massamba Mbacké ci njiital Serigne Abdou Khabir moom Serigne Massamba Mbacké ñëw na ba fii saafuwante Cheikh Abdoulaye ñaanal ko ànd ak mbooloo mu bari bokk na ci ñi fi teew Serigne Moulay Mbacké moom Serigne Balla Coro moom itam fa tabarakallahu ko xam diggante Serigne Massamba ak Serigne Balla Coro jataayam fii da xam ne la fi nekk lu jëmu fi bokk na ci ñi fi teew sëriñ Ahmad mbakke xalifa sëriñ Abdou Baaxe moom itam teew na fi sëriñ Cheikh Baara Mati Lay na fi doomam sëriñ Falilu mbakke sëriñ ab du Samad Mbàkke moom sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Mudu Farmata bokk na ci ñi fi teew waa kër sëriñ Mahmoudan Mbàkke moom sëriñ Masamba mbooloo ñëw nañ fi sëriñ Fàllu moom sëñ Mahmoudan sëriñ Baara moom sëñ Mahmoudan ak sëriñ Abdou Lahad moom sëñ Mahmoudan am nañ ñëw fi ak mbooloo mu bari waa kër sëriñ Modou Fati Xari ni ma ko waxee léegi ko xam ñoom ni ñu àndee ak Cheikh Abdou bu ñu waxoon waa kër sëriñ Modou Fati Xari rek mu doy sëkk waaye bari na ñoo xam ne teew nañu fi sëriñ Falilou Mbacke mi ngi nii teew suñu kanam sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari teew na fi sëriñ Jili Mbacke moom sëñ Modou Fati Xari teew na fi sëriñ Modou Kara Mbacke moom sëriñ Modou Faty Khary teew na fi Serigne Cheikh Gaynde Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary teew na fi Serigne Modou Abdoulahi Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary teew na fi Serigne Dame Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary teew na fi ak Serigne Yahya Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary Serigne Salihu Mbacke itam imaam yónnee na fi moom itam te ku ne xam naa gàllankooram waaye bis bi bis bu ko ñor la yoon yabal na fi délégation bu mat sëkk. sëriñ Abdou moom sëriñ Modou Faati Xari teew na fi sëriñ Abdul Wahab moom sëriñ Modou Faati Xari teew na fi ñii ñëpp kenn ku ci ne bu ñu doon wenn tur rek ñoom ñëpp danañ d'accord ne yóbbaale nañu ci def ñëpp waaye Cheikh Abdou Lahat mii ñu fekk ci bés bi nii ñu ñëwee ci moom dafa rëy ci moom lool moo tax kenn ku nekk bu sañen dalay fekk fa nga fa nga toog jox la loxo saafoonteeg yow wan la ne la li nga def yëg si na am na koo xam ne ci njabootu sëñ Mudu Faati Xari la bokk nekk ci nekk ci jotaay bi te tuddaguma turam waaye dafa am liggéey bu mu yore boo xam ne daa jaay léppam ànd ak sëñ Abdullah Mbàkke buñ ci yeggee dinaa ko gën a leeral bokk na ci ñi fi teew sëriñ Madou Ndiaye Njula Seen Alaaji Abdul Asis Mbay kër Asan ca Kajoor sëriñ Murtala Si xalifa sëriñ Abib Rasul Si yabal na fi rakkam sëriñ daam jigal xalifaam sëriñ mut jigéen mbooloo mu bare baree bari la àndal te xam ngeen ne sëriñ mut jigéen ni ko suñu abdoulaad waxee taalib bi yëpp ay barkeelu ci moom di jariñoo ay waxam ab xalifaam bu bàyyee lépp ñëw teew fii ànd ak mbooloo moo xam ne kum cuuni woon mu doy loolu rëy na lool ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu ngi koy dalal bu baax di ko sant di ko gërëm bokk na ci ñi fi teew Serigne Ibra Jëmb Njaay nga xam ne moom moo représenté kër sëñ Daaru Assane Ndiaye gépp te doy nañ ci firnde rek moo yore seen kàddu ñoom ñëpp kon bu teewee fii wane na ne kër sëñ Daaru Assane kenn desul loolu itam sëñ baa ngi rafetlu délégation Masalikul Jinaan Serigne Mbaye Ndiaye Sanoussi moo ko jiitee ànd ak mbooloo mu bari ba ñu tàmbalee bés ba léegi mu ànd ak Serigne Abdou Lahad ci waajtaayu bés bi taxaw ci taxawaay bu am solo kon bu ñëwaatee fii moom daa feddali rek waaye naka naka jëkk boo bañ ko tàmbalee ba tey noonu moomu ko ànd waa kër Baye Demba Diop Thiès Papa Basirou Diop maire Thiès Serigne Gora Diop Thiès Serigne Amar Diop ak Serigne Mbaye Diop ñoom ñëpp bàyyi koo Thiès teew fi soxna Soda gay soxna Dior Guèye soxna Ndey Jaxate ak soxna Ngoone Siise Colom Fall ak sëñ Dam Papa Fall ñoom ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ne teew nañu fii kon comité d'organisation bii nga xam ne ñoo yore màggal gi maa ngi leen di jégalu bu baax ndax ci ñoom lañu war a tàmbalee liggéey bi sant leen gërëm leen ñaanal leen mastawu leen coono ndax ba bés bu melee nii lépp ñooma te ñooñu nag ki jiitu man naa ne Serigne Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo yore protocole bi ndax ak woyofam ak yitteem ak pas ak bëgg lépp dox noonu la ma ko Cheikh Abdoulaye waxee beral na ko cant ak ngërëm ak ko ñaan nangul ko lool itam li mu def ndax xam na li mu ci jublu liggéeyal waay juum rek liggéeyal waay juróom rek la ci jublu te loolu sëriñ bi rafetlu na ko ànd ceeg moom ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo jàpp ci comité d'organisation bi tàmbalee ko ci sëriñ Papa juuf ak sëriñ Abdou Diouf ak sëriñ Galak Fall ak sëriñ Modou Cissé ak sëriñ Moustapha Cissé ak sëriñ Ahmed li alquran nga xam ne loolu mooy li ñu jiital ci bés bi dakkantalam woowu moom itam bokk na ci ñi nga xam ne ñi ngi leen di sant ak ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci xasaayit sëriñ Papa Diop ci laa tàmbale am loo xam ne boo ko dee xaar dalay romb waa daayira sëriñ Modou Fati Xari ñoom itam ñu ngi leen di sant ak waa daayira sëriñ Modou Kara Mbacké waa daayira Serigne Fallou Mbacké waa daayira Touba Serigne Abdou ak Serigne Modou Cissé waa daayira Serigne Mbacké Salihu waa daayira Serigne Mame Goumba Amar waa daayira Serigne Mame Mor Mbacké waa daayira Serigne Abdoul Fatah ak waa daayira Serigne Cheikh Ndigal Fall ak waa daayira Serigne Khadim Mbacké ak waa daayira Dakar adjudant chef Mouhamadou Ndiaye ak Moudou Ndiaye Moudou Diarra Ndiaye daayira Mbour sëriñ Ndonga Diaw ak Abdoulaye Lo ak Ndemba Kamara soxna Ndaa Jéey daayira Njaga Ñaaw Ibrahima Kama Suley Fay usmaan Fay daayira Tëngéej Cheikh Jaxumpa Géejawaay soxna May Fall daayira Géejawaay soxna Màggat Mbàkke ak soxna May Fall ak soxna Abi Fall ñooñu ñëpp di ay daayira yoo xam ne bokk nañu teew fii bokk na ci njabootu Serigne Modou Faty Khary gi fi teew soxna Njóoba Mbàkke ak soxna Ami Magat Diop ak soxna Mbenn ak soxna Maam Isa Mbàkke ak soxna Ndey Seynabu ak soxna Mbàkke ak soxna Njóoba Mbàkke mu ndaw ak soxna Maam Seynabu ak soxna Maam Say Moustapha moom sëñ Modou Faty Khary ak soxna Mbàkke moom sëñ moom sëñ Modou Faty Khary soxna Mbacke moom sëñ Modou Faty Khary ak soxna Mbacke mu ndaw ñoom ñëpp bokk nañ ci ñi nga xam ne teew nañu fi loolu nag li muy wane rek mooy njabootu sëñ Modou Faty Khary kenn desut ñoom ñëpp ñëw nañu ànd ak sëriñ Abdou Lahad bés bi muy bés boo xam ne ni ma ko waxee ci njëlbéen gi fàttaliku mag mu baax ak ñaanal way jur fàttaliku mag mu baax mag ñi nga xam ne ñoo na nag sëriñ Tuubaa dey fàttaliku leen jamono laaj na ko lool fàttaliku leen waxtaanewaat leen jamono laaj na ko lool wax naa barki démb ne jamono toll na foo xam ne ku bëggal sa njaboot jàmm war ngaa tiit wala boog nga am looy teet ndax nit ku gëm yàlla sax du tiit waaye dana teet te li waral lool nag mooy nun lislaam rek lañ am ci la sunu lépp nekk sunu tey ak sunu ëllëg lépp ci lislaam la yàlla boole teg ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu def jeexal ci njàmbaaram ak coonoom ak ñamu àndaloon muy dox ba tege ci loxol Sëriñ Tuubaa mu ànd ko mag ñu baax ña ñu geddi seen i juddu bàyyi seen i dëddu seen askan ànd ak Sëriñ Tuubaa mu taxawal yoon yi ba mu ak ci fii ñooñu kenn waru leen a fàtte waaye nag li tax nu war a tiit mbaa nuy teet noonu lislaam yi somb nañu jullit yi noonu lislaam yi ñu ngi xeex lislaam te bari nañuy pexe bari nañuy moyen bari nañuy ndaw ñii di fëkk ñii di fef ñii di féréw li loolu nag ku bëggal sa njaboot jàmm wala nga war nga cee jëmale sax xalaat te moo di def nii Cheikh Abdoul Ahad def ay nawleem di ko def ñu jeewaat gone yi jàngal leen alxuraan yee leen ci seen lislaam ndax ñi nga xam ne ñooy xeex lislaam li leen gën a yitteel mooy gone yi ak jigéen ñi xëcc nañu gone yi ak jigéen ñi di leen woon ay star yoo xam ne dañu leen koy taaralal di leen ko bakkal di leen woon ñoo xam ne dañuy bëgg ñu ñee leen te leget gi ñuy naxe gone yi ak jigéen ñi mooy xaalis te dañu leen koy sëndal rek ñu gën a darngu di ca jëm te lu ñu gën a darngu l'islam di gën a perte kon nag kilifay diine yi war nañoo góor góorgóorluwaat dellu ci waat daara yi bu ñu dellu ci waat yi ñu bàyyi xel ñaar ñoo daara joo xam ne ñaar ñooñu war nañ caa ne daare ju ne war nañ faa bàyyi koo xam ne dafa jóge ci daaray tarbiya ñëw ak ànd yi bu dee ci jigéen ñi ñu wut saa bàjjen yoo xam ne ñoo dajoo ñoo daroo nag waa kër Sëriñ Tuubaa ñi ñu yar leen yar ba Sëriñ daan def ci ñoom ñooñu buñ leen sàgganee mag yi mag yi nga xam ne ñoo bàyyi ko ci daaray tarbiya yi buñ leen sàgganee ak saa yi nga xam ne ñu ngi foon démb ak barki démb ña nekkan ca kër soxna musli ña nekkan ca kër soxna Fadia ña nekkan ca kër soxna moomi ñooñu ay nit lañu ñoo xam ne am na lu ñuy def ci ñoom te tey taxoon nañ leen fulaal fay fay daal leen boole leen ak ay gone ñu jubbanti leen yee leen teg leen ci aw yoon dañuy bañ a guddal kàddu gi ndax waxtu wi léegi dañuy jox kàddu gi Papa Diop bokki jullit yi bokki taalibe yi ñi ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi Serigne Sidi Mokhtar di ñaan sun boroom yàggal ko lool ci suñ kanam te wéral ko ah, tëbb ko kàttan balam yéenee liggéeyal maamam Serigne Touba mu def ci loo xam ne dana kawe njortam tan ànd koog moom di siyaare itam sëriñ Moustapha mi nga xam ne moo fii sëriñ Massamba tey ci kaw suuf noo ngi koy siyaare moom njabootu sëriñ Massamba gépp di leen ñaanal ñu yàgg fi lool te wér ba lañ yéenee liggéeyal sëriñ Touba ci kër sëriñ Massamba ñu def ci loo xam ne dana kawe seen njort di siyaare sëriñ Cheikh Mbacké xalifa sëriñ Modou Fati xarit ak njobootuk sëriñ Modou Faty Khary gépp góor ñi ak jigéen ñi bàyyiwuñu kenn di ñaan sun boroom tëbb leen kàttan te yàggal leen fi wéral leen balañ yéenee liggéeyal sëriñ Touba ci kër sëriñ Modou Faty Khary ak ci kër sëriñ Massamba ñu def ci loo xëye dana kawe seen njort tañ ànd koog ñoom di siyaare itam sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne mooy baay faalu kër gi E, di ko siyaare te di ko ñaanal moom it fan wu gudd wu ànd ak wér di ko di ko di ko di ko ndokkeel ci bis bu baax moom itam di sant mboolem rajo yi fi teew ak télévision yi di siyaare mboolem kuy kilifa fii kilifa fii ci baas bi mënuñoo lim ñëpp waaye ñoo ngi maasale di siyaare ñëpp di sukk ci seen kanam di raam di leen siyaara di leen ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér ak wërsëg wu ñu mën a jaamoo yàlla mën cee liggéeyal Serigne Touba di santit Serigne di santitam waa Daarul Muyin wax dëgg yàlla ameel nañ leen ak cant gu ndax ñoom it bés bi ba mu jubsee ba fi mu ne ñu ngi ci waajtaay wi génn seeni néeg wàcc seeni lal dalal dalal gan ñi kon ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant mboolem daayira yi mboolem fu daayira Isdiyaadul Minnati nekk rek ñu ngi leen di maasale ak cant di leen ñaanal lu ñu man ren bu dewee nee ñu mën lu ko raw te Sëriñ Tuubaa fay leen fay goo xam ne gii dana dana kawe dana kawe seen jot di ñaanal itam euh, Daaru Karim nga nga xam ne nag moom laa foofa laa bàyyi koo muy quartier ba nga xam ne sëriñ bee ko teg ci sama loxo te ñu sos fa daayira isdiyaadul minnati tayit ñuy ñu baax di ñayu xare lu sëriñ bi nekk rek ñu ñu maase ñoom ñëpp jóg ànd kook moom ñu ngi leen di siyaare ñoom it di leen ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér ba luñ mën ren bu déwénee ñu mën lu ko di siyaare itam sëriñ Abdoulaat mi nga xam ne moo moo woote bis bi tey di bis bu màgg di bis bu tedd bis bi ñu di ko defalit ku tedd bis bi màgg na ndax kenn ku ne bëggoon nga boo amee doom boo fi bàyyi ko sa doom di la fàttaliku di la ñaanal ndax ku fi bàyyi ko ku ne ah, say say jaamu yàlla day dog ba des téere boo bindoon ba fi wala doom ju baax doo fi bàyyi mu di la fàttaliku di la ñaanal te sëriñ bi bis bii doon bis boo xam ne bis bu ko ñor la te benn bis ëpp ko gën benn bis gënu koo ñor bis bii ndax kenn ku ne ki nga xam ne mooy sa way jur nga xam ne mooy ki nga xam ne ci nga jaare ba gane jamono kooku bisam benn bis munu ko gën a ci yow te bi mu ko sumbee ba boobu ba fir ne itam mook yi ak xarit ak taalib yi ak jàmm yi ñoom la ko bokkal ñi bëgg a wax nag dafa bari te euh, guddi na nan ko gàttal foofu rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh aousubillahi min alsheytani irajim bismillahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashaabihi alkiram wa man ixtafa asarahum waxtada bi idayatihim ila yawmi din ixwatu lirada ixwatu almuslimin walmuslimat assaada wa sayidat alxadiron bi haasihi almunasabati diniyati alislamiya ala wahiya yowmu tazakkuri wa du'aa'i li xayaat li tasakkuri xayaatil marxum wa du'aa la ala wa huwa Serigne Modou Faty Khary Mbacké ibnu Serigne Massamba xaadimul xadim nuxayikum taxiyatan tayiba islamiya waxiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yi teew ci bis bi yëpp noo ngi am mbégte mu mag ci yëkkati suñu kàddu di barkeelu ci bis bi te di leen ziyaar di leen ndokkeel te di leen ñaanal te di leen sargal bu baax ci jataay bu sell bi nga xam ne moom ngeen fi def tey ñëpp toog ngir fàttaliku ak a ñaanal Serigne Modou Faty Khary Mbacké mi nekkoon docteurul islam ñu ñaan tamit ñaan yéeg lépp yàlla na ko suñu borom jotal e, mu doon ndaje moo xam ne nag day lu am solo ndax alxuraan moo nu digal comme ñi njëkk wax yépp wax nañu ko wa wasayna al insana bi waliday xusnan ba tax Cheikh Abdul Ahad di ci fàttali ko way juróom wi ci jàng alxuraan salaatu ala nabi ak mboolem li nga xam ne moom lañu xëye depuis sa suba ba léegi fas yéene fanaan nag dundal guddi gi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax e di ñaan tamit daje bi doon daje yu yàgg ci daraje Cheikhul Xadim Cheikh Ahmadul Xadim mi nga xam ne dafa wax ne yaqiini yaqiini xubba maa laa yuhibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muxalladi sama kóolute man ci boroomam ak ci yonent bi sallallahu alayhi nee na koolu côté googu moo may fegal may bëgg lenn loo xam ne yonent bi bëggul loola koolute googu moo ma fegal may bëgg loo xam ne yonent bi bëggul loola kon bëgg-bëggam lépp mooy bëgg-bëgg yonent bi te bëgg-bëgg yonent bi mooy bëgg-bëgg suñ borom moo tax mu liggéeyal yonent bi liggéeyal Cheikh Ahmadul suñu borom liggéey boo xam ne kawe na njort yëkkati loxoom ci kaw wax ne man sañ sanna ni xayra xadimil Mustafa fa inna ni axdimuhu bi Mustafa axdimuhu ila duxulil janna daaril xaraari wal wal muna wal minna ku jort ne man Cheikh Ahmadul Xadim lenn laalu du liggéeykatub yonent bi dàq naa njortam man liggéeyal yonent bi kese mooy li ma fi bàyyi te tamit danaa ko liggéeyal ba ba may dugg àjjana muy kër gi nga xam ne mooy këru xéewal di këru mucc liggéey bu rëy boo xam ne kenn sikk sàkkawu ko ndax dogu na ba def fi lu rëy ak li ko suñ borom teg ci nattu yëpp mu tege ci kawam mu di ko muñ te xam ne li mu bëgg moom li fekk bakkanam rek attan na ko ruu gi mën na ko ruum attan na ko rek jom ji mën na ko dékku mu jaar fu bari bari lu nekk mu daj ko ciy nattu waaye teewul li mu bëggoon lépp suñ borom defal na ko liggéey boobu rëy na ndax liy firnde li ay adxaka rabbiya rasulallaahi bi xattiyal moxsi aduwallaahi yàlla suñu borom day mooy muñ loo yonent bi di ko reeloo ci mbind mi nga xam ne dama koy bind li ci tagg yonent bi di ci sant suñu borom ak li mu làmboo lépp sama mbind mi nga xam ne mbind la moom day gàcceel maanaam noonu yàlla yi daf leen di gàcceel cheikhul xadim nag doon koo xam ne njëriñal mbindeef yi la dara bàyyiwu ko fan lu dul loolu waxoon na it ne lawla alkitaabu wa sunna ma bittu laylatan fi dunia bu du loon alxuraan ak sunna day génn guddi rek dama ko fanaan fii ci àddina dama ko fanaan fii ci àddina moo taxit alxuraan fay na ko ndax nee na rafaanil quraanu rafan xafada man shaahu taxaddumi fan xafada alxuraan moo ma yëkkati ba ma nekk ci kaw nekk ci kaw nekk ci kaw ba ñëpp di ma séen ma jiitu ñëpp egg fu kenn yeggul ba tax na koo xam ne jiitu gii ma yàlla jiital dey naqari na la it lay daal di suufeel kon loolu moom ma ko wax moo tax mu ne law alima annaasu ma huna la baadaru ila talabihi walakin lamma jahiluhu talabu xayrahum bu nit ñi xamoon li nekk fii fi man day ñëpp ay njëkkante ñëw gaaw njëkkante si ke góoréew si ko waaye bañ ko réeree lañ dem sàkku ji leneen lu dul moom njëriñ li nekk fi moom nag nee na euh, kullu muridin bi yalawdu yas yalawdu yasadu wa ko innahu min mu asaamu baadu bépp mu murid boo xam ne wéeru nga ci man te dëggal te aw ci tànki njub di di jëfe ndigal di bàyyi tere day na la wóor ne ay te ay ay lor moom suñu boroom dana la ci musal ay lor moom suñu boroom dana koy soril ba dara du la dal moo tax nag ñu war a jël suñu lépp jaayante ak moom suñu dund suñu noyyi suñu lépp ñu moom ko ni mu ko joxe woon bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñu jox ko noonu bu ñu ko defee rek xam ne danañ jëriñu àddina dinañ jëriñu ay laxira am kilifa nag dafa am solo lool ndax ma yow ma nadu kullu inaasin bi imaamihim dafa am solo te loolu mat naa bàyyi xel nit fa ngay bokk fa nga bëgg bokk ëllëg bu ñuy woote kuréel ya ak nit ñaat ña leen jiite woon ñëpp nga xool ci fan ngay bokk nga xam fii laa bëgg a bokk nga daal di jéem a ànd ca loola kon loolu dina am solo trop ndax su ëllëgee bu ñu wootee kër yonent bi day ba ñëpp jóg taxaw ñu di leen fay ba ay ci cheikhul ahmadul xadim ñu daal di woote Serigne Touba bu ñu woo Serigne Touba balaa muy jóg moom nañu Cheikh Abdoul Ahad nettalee woon ñàkk caaxaan mu ne bu ñu àggee ci turu sëñ baa day balaay jóg mbooleem ñi àndoon ak moom doon jàmbaar te daan ko liggéeyal dañuy jóg di natt ñu di leen nattal seeni àndaar ñu di leen félicité di leen tagg di leen tatagal ca péncu ma ba day mujj waa péncu ñëpp dañ naan waaw ki ñu woowagoon woon te moom ñëwagul aw nitam jóg rek di duy boobu ba léegi mooy kan ñu ne kii mooy Cheikh Ahmadul Xadim noona ko nag antal karimu anal xadimu dahran udimu fii ka sonaay jëloon na dundam yëpp jox ko moo tax yonent bi na man dey maay ngeen ji bindeef bu ëllëgee man la yàlla di njëkk a dekkal àjjana ak safara it ku ma gëm te topp ma àjjana nga jëm ku ma mooy te weddi ma jaar ci safaan safara nga jëm waaye loolu lépp du ndam ndamoowu ma ko man maay sangu bindeef yi maay njëkk a dekki maay njëkk dugg dugg na te ak akbar boobu ko jox na ko Cheikh Ahmadul Xadim nafaana laahu bi barakaatihi kon nañ góorgóorlu bu baax te xam fi ñu bokk lu mu doon ab taalu bi nag day sax ci ndigal mooy tax mu mën a jëriñu rafet njort dëggu te wéral li mu nekk tey sellal saxoo jàmm yàlla lii su ko defee rek mën naa mucc bu baax ab sëriñ it li ñuy sàkku ci moom mooy ku dimbali taalibe yi dañuy sàkku ci sëriñ ku leen marale ak seen boroom di dindi seeni ayib yi nekk ci ñoom comme ñoom la yàlla may ñu am baatin ñu am bëti xol man di dindi man di def ci màgg ak kàttan ak li leen suñu borom jagleel nañu gën a fóot taalibe yi te di leen dimbale maralee leen ak seen borom am na ñoo xam ne bu ñu gisee sëñ bi rek daanu nañu am na ñoo xam miin nañ koo gis am na ñoo xam bu waxee daanu nañ am ñu min loolu am ñoo xam ne yegg nañ ci bu sëñ bi bu xaal ñëwee rek bu ñu xalaatee dañuy daal di daanu ku nekk sa tolluwaay waaye am na ñoo xam ne it dañuy bëgg ko leen marale ñu daal di yegg man tawassala bi waasidin wasal wa man tawassala bi aksiyin fasal kon noo ngi ñaan di ko sàkk bu baax Cheikh taalibe yi ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay sant te di la ñaanal nga yàgg te may la wér dolli la kàttan bu baax ndax ku lewet nga ku baax nga ku am yëg nga ku am diine nga sëriñ nga boo xam tamit ku am qualité nga ku am personnalité li tax ma di ko wax mooy xeeboo kenn te nit bu xeebul kenn rek personnalité foofu la tàmbalee ndax àq bi dox diggam ak boroomam da ko koy jox àq bi dox diggam ak ay ay ay nawleem mu jox ko ko àq ji dox digganteem ak taalibeem ak mbokki jullit yi mu jox ko ko te lii may wax wa ma shahidna illa bi ma alim naa góorgóorlu ci njub nag ak lu baax di roy sa kilifa lam nekkoon nga nekk ci xam nañ Cheikh Ahmadul Xadim caaxaan indiw ko fi ñii ko fi wuuti it caaxaan taxu leen fi jóg yonent bi nag noonu na isaa daxala ahlul jannati janna wa daxala ahlu naari naar yu jaa u mawti fa yuqafu bayna aljannati wa naar summa yuqaal ya ahla aljanna al taxrifuuna haza fa yasraibuun wa yansuruun wa yaquluun naam haza huwa almawt wa suila wa duiya ahlu naar ya ahla naari hal taxrifuuna haza fa yasraibuun wa yansuruun wa yaquluun naam haza huwa almawt summa yumar bi fa yusbax bu ëllëgee yowmal xiyaam bu waa àjjana duggee àjjana ba waa safara dem safara ba noppi dañuy indi am kuy mu mag taxawal ko diggante àjjana ak safara muy dee ñu leen ndax xam ngeen xar mu suur mi mooy man yéen waa àjjana ñu yuqamti ko yéer ko daal di ne kii mooy dee ñu indi waa safara buñ ko ñëwee teg waa safara xool ñu ne xam ngeen ñi xam ngeen kii ñu ne waaw kii mooy dee ñu digal ci moom ne ñu yonent yàlla saale dañuy digal bu ñëwee moo koy rendi bu dee amee nag dee amatul buñ ko rendee moom xar moomu mooy dee dee dootu am ñu ne yaa ahlal janna xuloodun fala mawt wa yaa ahlal naar xuloodun fala mawt yéen waa àjjana fi ngeen di sax dootu leen dee yéen waa safara fi ngeen di sax dootu leen dee kon nag mi ngi ñëw dinu dàq te dinu dab par kenn kenn dinu yóbbu te kenn ku nekk loo deful woon fii ci àdduna boo ko bëggee def foofu dana dana doy waar lool mm-hmm. kon góor góorlu nag faggu lu baax lu lay jëriñ zahir di la jëriñ baatin di dundal di dundal sa xol ak sa ruu ngay jege sa borom ba am ngërëmam loolu daa mat a xëy mat a gont kon tànki dem yéeg dikk yal na ko yàlla soppi ay yiw ak tiyaaba te maasale ko ci ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa noonu nag suñ kàddu saa bu jógee rek nañu xam ne bokki taalibe yi ñoo boole seen kàddu jox ma ko ma di ko jàllale kon yéen yi nga xam ne yéenay suñu kilifa te sëñ Fallu mii nekk ci bopp bi ak i bokkam taalibe yi day ñu ngi leen di yóbbante ak cant bu baax den xamal ne seen xel dal na ndax jàpp nañ fu wóor foo xam ne ñun jàpp li ñuy wombat leer na nu naññi ne sunu jariñ dong la ndax mosuñu noo woo benn bés boo xam ne dañ koo xool mu yëf àdduna kese lu am njariñ rekk lañuy ñuy te ñoo cay jiitu dinu ca woo kon yéen kilifa yi ñu di ko wax Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi nga xam ne tey moo woote kilifa yi day ñi ngi dongo yi day ñoom seen xel dal na seen jot rafet na ndax su fekkente ne danga àndak sëñ jaa njéetige te fa muy dox fala lay wommat nga topp ci moom tamit la nga xam ne moom la fi sëñ bi bàyyi woon dong la ñuy yeesal waxtu wu nekk loolu day dal xelum dong yi bu baax te fii barab bii sëriñ moodu Faty Khary mi nga xam ne moom la fi mii di fàttaliku di ko dolli ñaan ak bokkam yi yëpp barab bii de sëriñ moodu Faty xari liggéey na fi ay sàqi fukk yu ko te dugub yi saañoo bojj ko yët sëriñ Fallu Mbàkke ay yooni yooni yoon ci dëkk bii fii bi fii lañ kon defee loolu nag ka fa doon def bëggul woon mu gent dafa bëggoon muy dund dundal gi xam ne sëriñ Blaat mi ngi koy dundal ta jaaree ko ci ndigali kilifaam loolu dongo yi am nañ ci mbégte di ko ñaanal mu gën a wér yàgg ko woote ànd ko kilifaam yi ak rakkam yi ak taalibe yi ñu yàgg ko wuy si te lépp di yokku te loolu nag am nañ ci yaakaar ne luy dox la waaye dellu gannaaw mukk ndax lépp loo xam ne la ko sos moo di liggéeyal sëñ Tuubaa di ko jébbal loola defe nañ ne day jëm kanam waaye du dellu gannaaw mukk te sëriñ Modou Faty Khary mi nga xam ne moom lay wooteel bis bii lépp loo xam ne dong yi mas na koo liggéey ba ñëw bala caa jëfandiku lenn day wax na nan dem ci Sëriñ Tuubaa yóbbu haddee yi am na nu mu daan joxe haddee yi itam ndax danaan jël li nga xam ne dong yi tarbiya dañ koo liggéey mu jël ca lu am solo boole ko ak li nga xam ne taalibe yi takko yi ñoo koy liggéey ak ñaq boppam la daan boole lenn lu nekk mu jël ca lu am solo boole ko na ko yët sañ Tuubaa te ñëw saa bu ko masaa yóbbu ba ñëw nag ba summiku day wax ne fii mu toll de jaam nag bu ko neexee mu xooj buy waaye tool bi fii joxegul hadiya day mi la nekkul ci dara kon nag koo xam ne kooku ngay fàttaliku di ko jàngal kaamil liñ ko lim fii na jàngal nañ ko ko ak xasida yi salaatu ala nag yi lépp jëm ci moom ak bokkam yam fa nekkal looloo am nañ ci rafet njort bu baax moo tax nun donga yi nga xam ne amuñu lenn lu dul sëriñ Touba te yéen yéen a fi taxaw taxawaayu sëriñ Touba nu gis na nga xam ne moom lañ doon woote donte fekkiwun ko mag ñi nettali nu ko te waaw doxin doo ngeen di dox loolu moo dalal suñu xel moo rafetal suñu jot yàlla nañ ko yàgg woote ñu yàgg ko wuy si góor ñi ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di seere ci turu donga yi ndax du nu wax leneen lu leen non ndax duñ joxe ndigal duñ defee lenn ay dongo rek la ñuy wax suñ xol daal sedd na suñ jot rafet na yal na woote bi yàgg yàgg wuy si te lépp yokk te lépp it ñu nangu ko li ma ci dool nag mooy nun dongo yi nan dolliwaat suñu ndax ñii nu àndal kat ku ànd ak wax ngaa war ngaa fekk li ko waat sa laxasaay bu baax ndax ginnaaw waxtu bu nekk da ngay xool di ko séntu sa kanam rek mënoo koo jot ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bii war na noo yokk suñu laxasaay yokk suñu jéego mooy tax fu nu geesoo gis ma te lépp lu ñu jox ndigal weesu wut lu jëm ci sëriñ Tuubaa lu ñu taxawale jumaa lu ñu wute daara yi jànge alxuraan loola ku la ca woo nga da ci def sa alal war ngaa xëy sànniwu ko tagga ci am tay la nga ci am ëllëg foofu rek laay wax naan góorgóorlu bu baax mel na ne jataay bi yàgg na noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. léegi noo ngi jox kàddu gi ku ñàkk noo ngi jox kàddu gi ku woyof noo ngi jox kàddu gi ku bëgg mbokk noo ngi jox kàddu gi koo xam ne ku am yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci bindeef yi yàlla na ko yàlla àggaleel yéeneem muy sëriñ Abdou Samad Mbàkke di kenn ci njabootu sëriñ Modou Faati Xari taxawu rakkam taxawu magam ji taxawaay bu rafet ba xolam sedd xelam dal moom la ñuy fas yéene jox kàddu gi sëriñ Abdou Samad Mbàkke أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله عن شيخنا وأسنى خديم رسول الله الشيخ أحمد بن خديم رسول الله وعن شيخنا وخديم خير خديم رسول المصطفى maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine mbokk yi gannaaw bu nu sàbbalee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci muhammad sallallahu alayhi wa dañuy am ngoru yëkkat suñ loxo ca kaw nag duñ ci am benn deng deng ne jërëjëf sëriñ Tuubaa mu mel ne lii sëriñ Abdul Ahad organisé benn la ci manière moom ni muy waxe jërëjëf Serigne mu mel ne kon sa kilifa bu organiser lu toll nii danga war a am lecture boo ciy def mooy Serigne Abdoul Ahad bu ko neexoon mu toog Touba ca buntu këram na mu ko daan defe di ko fa defe walla mu mel ne sama kalaas bu sàggan gi dem ba fa mbooloo ma dëkk ñu di fa woote seen màggal waaye nag daa ñëw fa muy liggéeyale boromam nga xam ne ku ko fi fekk rek lu baax la yëkkati kenn la fi coow andiwut ku fi ñëw la tax nga ñëw yaag sëñ Abdul Ahad la yaakaar nga ne yaag moom képp kon nu ñuy dëkkandoo ndab li ci loolu nu ñuy jariñoo ci ni muy waxee jërëjëf Sëriñ Tuubaa loolu laa bëgg ñu waxtaane ko xam njariñ li ci biir sëñ Abdou Lahad gannaaw bu ma la nuyoo maa ngi nuyu autorité yi fi teew ngir jëmmal bis bi ndax bis bi rekk la am sous-préfet Ndiaye ak sëriñ Bamba woon sa xaritu bopp teewal fi sa xarit ba di euh, euh, le ministre de budget Birima màngara xam naa ne kenn la ci yow maa ngi koy nuyu Bamba ku baax la ku la bëgg la ku bëgg Sëriñ Tuuba la xew wu ne lay dajeek moom te du loo won garab bi mu yore kon Bamba yàlla na la yàlla dooleel léegi la ma ko sama jarbaat Sëriñ As Jang di fàttali ma ne ko wax dëgg yàlla def nga remarque bu am solo maa ngi koy nuyu di nuyuwaale Sëriñ Modou Boussa Jang mi mu toogal euh, li tax ma ne leen dafa am lecture jàngin bu war ci ni sëriñ Abdul Ahad di waxe jërëjëfa sëriñ Touba ñoom Moodu Tambédou bi ñuy jàng xasida yi léegi loolu rekk doyoon na ak màggal ndax sëñ Bay Jaxate da koy wax ne bala ngaa xam darajey sëriñ Touba bis penc jot ba murit ya dengoo di jàng xasida yi sëriñ Touba waaye avant goût bi mooy buñ koy jàng ci àdduna nga jàkkaarloo góor yàlla yi ñu koy jàng kon Serigne Touba ma consacré woon toute sa vie karrasa xayaatahu li xidmatil islaami wal muslimin bàyyiwu ci woon dara moo waraloon nag bu ko murit yi jàng nga dégg mu salaatu sitta bi matxi sitta juróom-benn weer ak juróom-benn muy fukk ak ñaar at mi jeex nee na juróom-benn yu njëkk yi salaatu sitta la yi ci topp bi mat sitta amutoon temps pour leneen ñun ñoo am temps te boo waxee loolu ñu ne bayiti sëriñoom la wax lenn ci ñi nga xam ne ay siècle avant Sëriñ Tuubaa lañ fi nekkoon euh, ku ñuy wax Shawqi daana wax naan ad diinu yusrun wal xilaafatu bayatun wal amru shura wal umuru xadaau religieux bi mën na ci gis bopp ndax dafa njëkk a wax ne diinekat la yonente ba waxoon ad diinu nasiha mu ne ad diinu diinekat diine yombal la boo bëggee nit ñi jariñu ci du ku yor aw yetom ne ku ku ku siggi nga dóor mel ne ku taxaw naan nit ñi maa leen di moom par force nee na diine du lool diine mooy lan mooy li sëriñ tubaa defoon yor xalimaam yor deram di julli ba murid yi taw ñëw taxaw ne ko yow nag yaa nuyu moom yaa une différence diggante yaa tey nga moom nu yow rek lan yaakaar ak tey ma moom leen sëñ Tuubaa nun dañ ko ne yow rek yaa nuyu moom kon addiinu yusrun mu ne wal xilaafatu bayatun mun a ak xilaafa dañuy jaayante ak yow du caagi ne diwa jur wala diwa ko jur déedéet diw da jur ba pare nga jaayan nit ñi jaayanteeg ñoom ni nu jaayanteeg sëñ Cheikh Mati lay Mbacké mu des la mu mel ne mbirum àdduna des mu ne wal amru shura noonu la ko alxuraan waxe noonu la ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxe wa shawirhum fil amri ak wa amruhum shura baynahum mu des lan li droit de l'hommiste yi di wax naan aq ak yelle yelleefu doomu aadama mu tëje ko wal umuru qadaau lépp nag ci justice la wara a jare kon mbokk yi loolu soññee rek la ci li sëriñ Abdul Ahad woote sëriñ bi bu bëggoona woote loo xam ne xëlëf xëlëf la du ñëw ba daaru Mouhine mu di ko fi defee dafa bëgg li muy woote ñu jariñu ci te kër sëriñ du Faty Khary gi ñu bokk nag wax dëgg yàlla sëriñ Cheikh ma ca bopp ba ba ca maam Fallou ma ca gëna doon ndaw loolu képp moo ñu ñor kon sëriñ Abdul Ahad njabootu sëñ Moodu Faati Xëri gépp ñi ngi ànd di la ñaanal yow mi nga xam ne yaa yor seen kàddu te mat ko sëkk te foo waxe famille bi siggi foo waxe njabootu sëñ Masamba gi sëñ Moustapha moom sëñ Masamba jiite te mat ko sëkk foo waxe ñu siggi waa kat sëñ Moodu Faati Xëri nee nañ ñu ngi lay ñaanal nii nga toogee maa ngi gis ci sawet sëriñ Ahmadou ak sëriñ cheikhum sëñ abdou baaxe ak sëriñ ahmadou magom ak sëñ fàllu sa xalifa bi di kenn ci yow njaboot gépp nee nañ ñu ngi gën a bég ci yow di la ñaanal yàlla mi nga xam ne lu mu dëgëral mu dëgër yàlla dëgëral say cër la yàlla wax ci alxuraan ne kuy jariñ nit ñi dana la yàlla dana la jariñ wasu wa yusabbitu aqdamakum yal na la yàlla dëgëral ba lii ngay liggéey ci kër sëñ ma sàmba gi nga gën koo tal te yàgg fi lool li ngay liggéey ci kër sëñ Modou Faty Khary nga gën koo tal te yàgg fi lool dafa di nag ku ñu jox kàddu di séentu ci yow ay kàddu te mu dis gann doo mën ñàkk yëkkati kàddu yooyu rek waaye kàdduy sëriñ Fallou mii dana doy sëkk kàdduy sëriñ Abdou xat mii dana doy sëkk wolif samay kàddu kon ñu gën a ñaanal kenn ci ñun muy sëriñ Cheikh yàlla gën koo wéral te gën fee yàgg te gën a wer moo ko way juróom wa di sëriñoom muy sëriñ Moustapha moom sëñ Massamba mi yelloo na xilaafa gi te wax dëgg yàlla mat ko sëkk na ñooñu nga xam ne toppee nañ ba li may faral di wax lam bi toppe bu ñu ca duggoon ub ko ñu fas leen a yéen a topp rek di leen xoolal sëñ Massamba kon la ma ubbe woon lay tëje rek di wax jërëjëf sëriñ Touba di ñaan sëñ laxat mi yal na fi yàgg te wér lu ci manqué rek ngeen jéggal ma ko damaa yéene ci moom te xam ma fu may tàmbali xam ma fu may yem sama matadi moo tax mu manqué waaye lépp lu ci mat rek jëmmam jii la maa ngi nuyu sama mbokki njenn yee di ma xool te bëgg ceeb lool sëriñ Sidi ak sëriñ Fallou ak sama njabootu maam Cheikh Ibrahima saar gii nga xam ñoo agsi léegi sëñ Cheikh Jannit agsi na léegi ak sëriñ Nooru sama xariti bopp kon euh, Baye Omar li nga wax ci man neel sëñ Abdou doy na sëkk bu mu ci teg dara na wax ak gan ñi li mu la wax loo nga wax ko ëpp na sax ci man na wax ak gan ñi sëñ Abdou Lahad na nga fi yàgg te yàlla na nga wér asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi samii al alim min charri cheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa afdalu salaat wa xayru salaam ala rasulillah إلى الشيخ عبد الأحد الذي ما زال يبذل كل جهده لتربية الأطفال والتهذيب ويعلمهم القرآن والحكمة ويعلمهم الفقه والدين كل هذا يعني في مهمة الشيخ الشيخ عبد الأحد شكرا وشكرا أيضا كلنا نعرف وكلنا أيضا عالم بأنك فرغت عمرك جميعا يعني في خدمة الشيخ شكرا دائما لك يا شيخ ñun ñaari message rek laay délivrer ginnaaw bu ma sante sëñ Abdoul Ahad ba pare sant sëñ Mouhamadoul Fadil magam du baax di fi nekk sant excellence sëñ Abdoul Ahad sëñ Abdou Samad Mbacké ambassadeur itinérant aussi nuyu représentant du président de la République envoyé par le ministre du budget mu nekk son chef de cabinet muy Cheikh Ahmadou Bamba woon donc euh, sëñ Abdou Lahad maa ngi lay sant su ma remarque bi ma def bi ci njëkk mooy ab sac nga ci ñun ñëpp sëñ Abdou Lahad laa bokkal ku ñëw tey fier na ci ku ñëw tey sawar na pour bokk yow parce que li sëñ Abdou Samad wax ku ñëw plus de vingt kilomètres de Touba ñëwoo fi ngir ay caaxaan fo dafa am ko dëkk Touba ku baaxoon ku jóge woon Touba dem Taïf ne li tax ma ñëw fii mooy ku ma fi fekk ma xam ne maa ko tax jóg parce que kenn du dem fenn jógee fa jaar ci ma Sëñ Abdou fii ku la fekk rek yaa ko tax jóg kon donc euh, sagal nga ñu ñun ñëpp ku fi ñëw it gis na yar bi nga fi teg dëkk bu toll nii investissement yi nga fi def ba mel nii tey lu ëpp ñaari junniy buntu kër wër la donc ginnaaw yàlla ak sa mbaax la ak extension tubaab bi nga def ak mission Serigne Touba bi nga fi indi kon ñëpp naw nañ la ñëpp nawloo nañ la ñu ngi lay sant ci loolu di la gërëm ci képp kuy woote ci waa mbokk buñ neen est-ce que baax na nag est-ce que mbokk yaa ko wax man reconnaître naa seen mbaax te it maa ngi ciy gërëm ginnaaw bi ci des it maa ngi gërëm yàlla ci jël gi njiit réew mi am ci yow ba envoyé la nit ku jóge ci moom parce que barki démb lañ wax ne moom la jël sa màggal dem mu saisir ministre am de budget ne ko na yebal ci yow mu waroon tukki démb démb démb tey mu yebal ci yow chef de cabinet loolu ak cër la suñ demee nag ba temporaire yëpp religieux loolu neex na ñëpp parce que sëñ Abdou dafa am solo su fekkee ne yow am nga dëkk boo xam ne ñaari junni bunt kër ñoo la wër nekk ay junni junni ci ay nit nga fa yar di fa jàngale di fa investir loolu état a xam obligatoirement état dafa am ci yow obligation boo xam ne daf ko war a matal kon su fekkee nag commencé na def pas yooyu yëg ne ci yow ndaw man di julli si yonent bi di sant sunu yaakaar sëñ Touba di sant sunu yaakaar sëñ Touba Mbacké di ñaan sëñ Sidi Mokhtar yàlla na fi yàgg te ñu ngi nuyu sëñ Abdou Lahad di rafetlu dal bi lim ñu dalalee rafet na ñu ngi rafet rafetlu nag bés bi. balaa loolu ñu bëggoon nuyu ñu fi teew ñëpp nuyu mbokk taalibe yëpp nuyu kilifa diine fi teew yëpp ñu gën ci ràññee sunu frère sunu sëriñ sunu woloré son excellence l'ambassadeur itinérant sëñ Abdou Samad dégg naa kàddu yu rafet yi mu sànni ci man waaye moom ma gën a baax moo ma gën a oyof loolu moom xam nañ ko. di beral nuyu nag sëñ Modou Bousso Dieng mi doon wax léegi ndax yàlla xam na ni. lu bari lay dox ci yoon bi diggante li muy naan spirituel ak euh, temporel ndax wax dëgg yàlla moom moo saisir ministre du budget mu saisir président de république wax ko bés bii ma ñëw nag fekk fii autorités yi ndax bu fi maire teewee sous préfet teew mu naa ne autorités yëpp teew nañ fii ndax ñoom ñooy représenté wax dëgg yàlla état waaye nag président dafa ma yónni ci yow sëñ bi ni ma gannaaw bi mu la santee gërëm la rafetlu sa bés bii mi lay xamal ni bërki bu la ko yéeg ci la ni ministre du budget Birima Mangara seetal ko mu fay yónni boo demee nga ne sëñ bi yéeg nañ bés bi ñi ngi rafetlu bés bi ñi ngi lay ndokkeel ci bés bi leen nag ni bés ni ki tey nga jàpp ni bés bi nañ ko li inscrit ci ne ñaan ci l'agenda républicain man li ñu naan yenn màggal yi màggal diw màggal diw màggal diw ba def ko ci date boo xam ne bu ñëwee dañ fay yónnee autorité yëpp ñëw maanaam au delà de préfet au delà de maire au delà de man mii lu mel ni gouverneur région teew fa ministre teew fa autorité force yi ñëw fa mooy gendarmerie mooy police ak yooyu yëpp mën ko encadré te balaa bi tamit nga mën a toog autorité nga mën ko préparer sérieusement loolu moo xamal naa ne que président wax na ko wax na ko ministre du budget naa ci léegi ak sama ministre chargé des affaires religieuses mooy bés ni ki daal jàpp nañ ni bés bi daal dañ ko esti daal calendrier républicain te nag bu ko waxee juumul ndax man bi ma ñëwee gis ci mbooloo mu toll nii mbooloo mu discipliné nii ñu mën koo def biir Touba bu ko defee képp ko dañ ko ba jaafa ñu diw am na mbooloo te ñëw def ko à 20 kilomètres de Touba nit ñi toll nii ñëw fi cinq kilomètres de Touba sax nit ñi toll nii ñëw fi te ma yàgg dem ci ay magal yàgg dem ci ay bés ñoo xamante ni nit ñi dañ koy couvrir télévision nationale ñëw fa te mbooloom di toll nii kon nag président bu nee da koy inscrire agenda républicain kon ak juumul kon nag euh, sëñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la euh, indi nuyu président de république ñu ngi lay nuyu di la sargal di màggal sa bés bi di ne na ñaanal Sénégal da ñaanal jàmm wàcc ci réew mi da nga ñaanal tawféex wàcc ci réew mi gannaaw moom it bu la ñaanalee yàlla bàyyi la lu yàgg ci kanamu sa mbooloo mi kanamu taalibe yi mi ngi sàkku moom it nga ñaanal ko yàlla baag fi lu yàgg yàlla wéral ay cëram leeral xelam leeral xalaatam ba lépp lu namm ci senegal mu ko fee liggéey loolu daal la ma président yónni woon jàll ci ministre budget Birima Mangara di sa taalibe di sa xarit di sa wóllare it moom it wax na ma ko léegi bi ñuy bala may dugg ci baas dani moom ana sëñ bi ma ko mu ngi fee ci biir na boo demee nuyul ma ko ne ko fasante naa kóllare ak moom loolu moom dañ mukk ne man du ma ministre ci kanamam taalibe laa ci kër gi voilà te muy lu dëgg te mu xam tamit man ak moom ñu def man ak moom daanaka mën nañu wax ni ñeent fukki at ak juróom maa ko def ministre bi te xam naa fi mu egg ci sëñ Touba xam naa fi ci egg ci yoon bi kon nag ñi leen di sant bañ a guddeel ndax dañuy delloo ba Dakar te guddi la di la sant di la gërëm kan di wax ni bés bi yàlla na fi sax te yàlla bu fi dellu si déwén ñu dellu fay délégation bu gën a rëy lii fuuf président na fi yónnee incha allah balaa boobu sax ngeen gën a toog waxtaan incha allah loolu moom naa ko dox incha allah. ñu ngi lay ziar di la nuyu. di la indil nuyu ak ziar préfet département bu Gossas di la indil nuyu ak ziar gouverneur de la région de Fatick même léegi ci jotaay bi woote na di laaj la yegsi la gouverneur ne na moom bu doon sagom moom mooy ñëw te moom jàpp na ne ne incha rabbi comme ni ko monsieur le chef de cabinet waxee ne na su neexee yàlla mbir yi mbiru la moom moo koy piloté boppam di nuyu kilifa yi yi fi teew yépp di sama xarit son excellence Serigne Abdou Samad Mbacké di sarak ju baax ndax li fi yëkkati lépp ci kàddu dégg nañ ko te loolu nit ku baax kese moo ko mën a waaye loolu ku mu jaaxal nag damay wax na peut-être sa dox dafa bëriwul ne lépp lu bokk ci sëñ Touba Mbacke rek lu baax la di wax jotaay bii ñu teew yàlla nañ fi teew ay at yu bari bëri bëri te at mu nekk rek képp ku fi teew yàlla nañ fi teewaat di wax sëñ Abdul sëñ Abdul Ahad yàlla sa borom guddal soo fan may la wér may la wérle di li ma waroon a jafe sax moo doon ñaanal ku tedd ki ki nga xam ne moo mooy sëñ Touba ci kaw ci kaw suuf muy Cheikh Sidi Mbaxtar Mbacke yàlla sa borom guddal aw fanam may ko wér ak wérle di sàkku ñaan nga ñaanal borom réew mi ñaanal réew mi xam nañ ci nga dëkk sax waaye soññ moom yàqul dara di ñaan nga ñaan jàmm ak xeewal wàcc ci réew yi wàcc ci umma islamique yépp ndax dafa am ay xew-xewu jamono yu ñu seetlu lu ñu tuddee terrorisme ak jihadisme dafa ñëw ba daal ci réew yi nga xam ne ñi ñoom ñoo ñuy wër ba tiitaange amoon ñu jël matuwaay yépp ngir far waaye dañu waxaat alhamdulilah rabbil alamina ne macha allah boobu ba léegi yàlla def na fi jàmm musal nañu ci loolu. te nag dañu continuer di rafet njaax njort ne kilifa yu tedd yu baax yi ku mel Cheikh Ahmadou Mbamba Mbacké li mu fi liggéey amul saay-saay bu mën a jógee ci àll bi ñëw di ko yàq wala mu mën a jaar ci ñoo xam ne ci réew yi lañ sasoo di ko yàq di wax aussi. lii ñu dëgmal muy wote dañu fa def na suñ ko tuddee rek wala saa yu jegee rek fitna day jib sago nit ñi dañuy taxaw seen sago na ngeen ko daan defee rawatina yow sëñ Abdoul Ahad ñi ngi tàllalaat suñu loxo di sàkku ci yow ñaan nga jaar fa nga daan jaar ñaanal ñu mu nekk wote yu ànd ak dal ba saa yu pare ñay suñu borom tànn ñu jàppale leen ñu liggéey ngir askan wi xam naa nag waxtaan yi waroon a gën a gudd lool waaye comme que dañu wax ne ñu gàttal dañuy fës naa gàttal di wax ne képp ku fi ñëw yàlla sa aaju fañu te ku fi ñëw yàlla na nga delluwaat jàmm fa nga jógee te boo demee yàlla na fa fekk jàmm te yàlla na jàmm jooju sax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.